<laughs> Sall Sall kalifon kaay fen Sall na def yaa ngi am jàmm mbaa kenn yabula mbaa tawatoo naka ngoon mbaa yaa ci jàmm bu baax ak gëj naa laa gis ci sociaux yi de yaa ngi am jàmm xanaa temps yi kii daa duggul fere yeeg yooyu fere de parler yi daa duggul. ah na nga def ak coono gëj naa la dégg yaa ngi ci jàmm pour manam expliquer la rek manam sénégalais ci bopam xam na ni bo gisé may wax ak yow ni c'est que ciowal aji sar da di actualité da di actualité waye Kalifon Sall pour xamal la benn mbir mu ndaw rek yow euh, Kalifon Sall do ñëw ñu may la aji sar une bonne fois pour toutes une bonne fois pour toutes ngir yalla ak yonentou bi ma la koy ñaan ngir yàlla gi yonent bi ñu may la aji Sarr une bonne fois pour tout parce que yow moom xam naa man ngeen a def waaw ndax aji Sarr moom doulatrice la yow doulateur ga xam naa ne bu ngeen xasee jul ay doom moom ay douleur plus la ñu doon waaw yow boo doon iPhone man la yaay iPhone 39 aji fa aji Sarr de iPhone 29 man ngeen a ànd. Dul yi ngay dul nga wara bax affaire de aji sar mi sunu ngagne ci golo gu ñun aji sar mi dama ñu la waxuma la yalwaan waye sayidina ousmane sonko mu sell mi ku den la ma jalal de sayidina ousmane mi kuko bayiwul nan la ma màjjaalal ta gaay dum la sarax yow sa problème moy ñi la war jox addiya war laa loxo ñoo la mere ousmane sonko tiaxar bu déssé deug kumu méré ci réew mi da ngay di ku mu bàcc réew mi dañ lay baax ku mu àndal dañ lay àndal dañuy ànd ak yow loolu du moom de yàlla suñu borom moo ko def ci moom du ci Seydina usmaan de yàlla suñu boroom moo tànn Ousmane Sonko ne ko cas indi ko Sénégal daal ni yéen xol yéen sénégalais seeni xol dinaa ci def jëmm ji far force ñun Ousmane de xaw ma lu ma ko bëgguloo man man wax dëgg yàlla Ousmane xaw ma lu ma ko bëggloo xaw ma lu ma ko bëggloo te bari naa ciy morom ci du ñun yàlla la. waaw du ndomba gu baax du bijeel yu baax du dara lii yàlla la waaw léegi nag euh, pour aji ay dañ ko doon màjjaalal ak yàgg nañ koo wutal ay nangam ak aji daa am problème ak amul sax fu mu dëkk ak am problème fay location Seydina Ousmane ñu ko laal ñëpp fi mu ne nii laa lay wax ñoom ñëpp ajee feeñ ñoom ñëpp gisoo ki doon laaj de noq laaj 200 millions yi barki démb moo njaay daa yoratu lu mu lekk problème boobu ñoom ñëpp la ajana muñu rek xam da euh, problème bi da mass non gi waaw fimne ni mom euh waxuma la majjalal waye Ousmane mom kep kuko bawul den la yaga majjalal aji sar nak mom sunu ŋaññi ci aji ndax liko dal moko tek bopam liko dal moko tek bopam dañuy wax li fi nek Kalifon sal deug du rombe nop soxna aji mi li ko dal moo ko teg boppam ah, li ko dal moo ko teg boppam aji mi bu rek la woon daal di toog ci pooji ndeyam lii du ko dal ah ak bëgge ak bëgg dërëm ah tax mu dugg ci lu mu xamul àdduna bépp bako nag man de yàlla mën a ree xañ nit ñi ah yàlla na ma xañ alal may ma nit ñi ndax man bu ma nit ñi bëggee lu ma bëgg ci nit ñi am ko waaye bu la nit ñi bàyyee yoral safewoo foo romb ñu ne ay xeer lan lay joor de ngay mel ne xaju xaju xaju àll foo romb ñu joor lay xeer waaw ñun sunu nga ñu nekku ci dana xoolal Kaliphone euh, une bonne fois pour tout xoolal actualité bi Adji Sarr bii gas leen ko suul ñun dañuy focus Ousmane lañ wax Ousmane altine dañoo war a jëli fii si dañoo war a commencé parrainer ñun loolu lañ wax focus focus focus ku mu neexul fokk yu point amul leneen bàyyi Kaliphone na nga def ak coono. ah ay duuli paraan war nga ko di ko jël de waaw aji nag moom li ko daal moo ko teg boppam ñun sunu ngañu ku duul bu sa avenir yàqu wax dëgg yàlla nag ah <laughs> en sénégalais ñun sunu ngañu ci ku duul ba sa avenir yàqu yow liggéeyoo sa avenir baax. waxoo dëgg sa avenir baax jàngiwoo sa avenir baax nga ne po ceeb cib nen aji saar man sax maa ko mag li may doon doon booy maa ko mag waaw aji saar ne pucet duul avenir am yàq fii moom ñaara fi am ku bayul toolu firaw na bay toolu Muhammad Ousmane nag moom daa nekk ci bay toolu Muhammad aji saar dikk ni ko di nga di nga ñëw nag ñu bay toolu firaw na Ousmane ni ko maa lànk voilà point ok ay location Adji Sarr ak awul fu mu nekk ak yooyu gérer leen ko amul problème yàlla baax na yal na leen yàlla may lu fay location jërëjëf xaro yooyu rek moom mën naa ñàkk wala boo bëggee xaro aji def ma signe def ma signe ma wax la ni ñuy ah.